su ko defee Moussa ku sonnoon la ci yooyu ba ci gis nga turu yi ñuy tuddee turu yàlla di ko sikkar ak ndax am xaalis mbaa siiw mbaa yu kenn xamul yëfi dof rek waaw yu ci bare ci moom la jóge wante mi ci am taalibeem boo xam ni ku baax la dañ ciy waxtaan mag moom mu ni ma dégg naa seen réew ma am na sunuy tur yu ngeen di jëfandikoo muy gaañ nit ñi foofu lu tax ngeen di ko jëfandikoo te turu yàlla turu ifrit la min afaritil jën ma ni ko xam nanu ko mu ni ma ku leen ko xamal ma ni ko sëñ Babacar Si waaw tàccu leen waay